man duma basé wu ci propos Moustapha Tall que je connais ah maa ngi koy ziar euh, que euh, parce qu'il pas le seul importateur benn ñaareel ba <laughs> mais est xam nga ne Moustapha Tall naan ceeb moom suukar la gënoon a mën la gënoon a fës que ceeb ceeb gi soñ fi bokk Samba ak fu mu mujjee gis nañ mu mujjee. gis ko mais c'est pas une question d'importateur le, le le premier ministre a annoncé benn concertation avec les acteurs ci wàllu woowu am na beneen concertation bu ñu annoncé le président de la république wax ko avec euh, chambre de commerce yi nekk ci réewum Sénégal yëpp ci fukk ak ñeenti euh, régions yi chambre de commerce yëpp ñu war a toog parce que tamit am nañu rôle bu ñu ci war a mën a jouer mais gis na ci wàlluk importation euh, du question seulement Euh, luy jóge bitim réew ñu ne la Ukraine wala Russie mais tey am na sur le plan diplomatique ce que le président de la République est en train de faire avec les pays de la sous-région de l'espace UEMOA euh, CEDEAO xam nga lan la ciy jublu également mooy mu mën a am un échange interafricain parce que tey ñun suñu suñu par exemple bu ñuy def ñun Sénégal exportation niñ dañ yaakaar ne bitim réew la ñuy exporté maanaam Europe ak yooyu. suñ Gambie. Guinée Bissau euh, am na yoo xam ne ñun dañ koy jëlee Côte d'Ivoire mu ñëw am ñuy dem Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Nigéria ñu ngi wax wàllu pétrole soxla nu ñu xam seen xam-xam ci wàllu pétrole ak seen jaar-jaar ci wàllu pétrole gis nga un président de la République et son gouvernement donc avec le premier ministre en haute dañuy explorer toutes les mm-hmm. possibilités surtout. ak panafricanisme bi nga xam ne moom la ñu prôné pour mhm. aller vers une coopération sud-sud qui sera moins onéreuse mhm. moins coûteuse que coopération bi ñu nekk boobu ba tey ci diggante le sud et le nord mu jëm ci Europe mu mhm. jëm ci ay euh, Asie wala yenn yenn réew yi la ngay dem di jëli ji par exemple Ukraine ñu ne la fi ñu toll nii am na ñu commencé di explorer explo exploiter non blé fii ci Sénégal mais ay ISRA ak yenn kuréel yi ministère bi ak lu ministre hmm. Mabouba ba par exemple mën nañ fexe ba bu doon benn tool nañu mënoon parce que am na ku ko def jam hmm. jamono yi ñu weesu blé am ci cinq tonnes ñu ne ko mais écoute on te donne les moyens on te donne l'eau on donne tout hmm. pour que au lieu ngay ñuy defal cinq tonnes yokkal nañ la ay hectares fexel li jënd ñu fii ak diir quinze tonnes wala vingt tonnes au lieu ñuy dem di jëndi cent tonnes bitim réew ñu ne ci quinze tonnes wala vingt tonnes yi ñu sénégalais bii di defar avec les moyens sénégalais nañu jël quinze tonnes yooyu doot ñu jëlati cent tonnes di ko jëlee bitim mhm. réew mais quatre vingt tonnes la ñuy jël wala quatre vingt dix ton au fur et à mesure dañ dem ba la ñuy jëli bitim réew dina néew parce que ala mhm. kuliyaal faw ñuy jëli bitim réew ala kuliyaal xam xam ni France ak ñeneen ñoom dañuy important ñoon loo xam ne ñu ñoo ko moom mhm. wala fii la fës mango demal France dañ koy dañ koy exporter dañ koy mm-hmm. jëlee fii di ko yóbbu France am ñu koy yóbbu France wala Allemagne wala feneen fu mu mën a doon nga jël euh, ndaamaraas bi nii euh, diggante euh, mm-hmm. Casamance ak Guinée Bissau mais loolu yëpp am na lu ñu ci war a defar parce que Guinée Bissau boo fa demee mm-hmm. da nga fekk jus ndaamaraas boo xam ne dañ koy defar. est-ce que échange du am ci diggante Sénégal ak Guinée-Bissau sur le plan diplomatique les efforts que font les présidents de la République muy Bassirou Diomaye fay tey muy peut-être avant mais bii laa mën a wax parce que bii laa gis par rapport ak euh, circuit bi muy nakk di def actuellement il sera aujourd'hui au Nigeria et demain je pense au Ghana donc dëkk yooyu muy dem am na lu ñu war a indil réewum Sénégal en terme d'échange sur le plan économique gis nga président buy génn da nga war a ànd ak da ngay ànd ak ay sa ci sa staff ministre de l'économie ministre bu ñu denk wàllug lii ministre bi ñu denk wàllug lële pour que ñooñu bu ñu demee ak seeni i naataangoo ministre yi fa ñu mën a waxtaan xool ci domaine bu ñu nekk nan la ñu mën a defee ay échange je pense que panafricanisme boobu warul doon un mot mais une réalité dans l'action pour justement permettre gis nga wàññi yooyu ñuy wax mu jiitu ci la ñuy jëli au lieu ñu koy jëli fu sori ak la muy teg ci bateau wala avion nga jëli ko fu la gën a jege d'abord et ensuite nga dem jëlee ko sa biir réew yow sa bopp donc c'est au fur et à mesure et comme l'a di le premier ministre euh, et je l'ai dit hier c'est une question de communication dañ wàññi le 15 nañ bàyyi date yi bàyyi date yi xamul tax dafa am une réelle la réalité sur le terrain aujourd'hui da nga ne par exemple euh, je vais le le prix du pétrole xamul tax mënul wax ni nañ wàññi essence dañuy wàññi essence wala dañuy wàññi gasoil parce que euh, fluctuation yooyu aajowul directement ci réewum Sénégal surtout que FMI def la ne waxoon ko gouvernement bi ñu weesu wala euh, régime bi ñu weesu la ngay subventionné ci énergie wàññi ko dafa bëri à la kulial koy wàññi ñu ne la soit da koy wàññi wala la ma la war a jox du ma la ko jox donc pratiquement dañ lay xoj pour nga wàññi par force te loolu yëpp c'est des choses à prendre en compte dans la communication man c'est plus dans cet aspect la communication de du gouvernement moom la ñu war a Euh, arrêté par exemple ne ni non di joxe date boobu nañ ko teg na ils peuvent communiquer expliquer aux sénégalais sénégalais yi jël ko parce que jele di dit hier am na période bi ñu toll période de grâce la boo xam ne loo wax sénégalais bi dina ko jàpp dina la ko muñal profiter de ça fa nga waxoon loo war a rectifier nga rectifier comme il l'a fait par exemple hier pourtant déggoo ci coow ba mu waxee ne ni ñun ñoo waxoon waaye dafa am loo xam ne mënuñu ko def parce que moomuguñu ko. mais déggoo ci benn coow. ci ay jamono peut-être doon na am ngan di coow. ñu ne pré kon journaux yëpp ay bind moo waxoon moo waxoon moo waxoon. nañ wax mais ñan ñoo ko bind. man bon ça c'est un ña koy bind ak ña ko dul wax ça c'est un autre que bon tout le monde n'est pas euh, ci benn lancé boo xam ne mooy dañ leen bàyyi ñu liggéey moi je suis convaincu d'une chose malgré ma posture de journaliste où je dois les faits. Mm. te les faits yi may gis mooy ni am na loo xam ne ni mënuñu ko. Mm. tout de suite. daar daar c'est pas possible parce que dafa am ay paramètres yoo xamee ne xam nga y a ce qu'on appelle les chocs exogènes mhm. yoo xamee ni moomuñu ko bitim réew lay jógee moom moo lay imposer yenn saa sa doxalin booy falu dañu ne woon PSEO mhm. tout zéro mais da nga mhm. falu FMI ne la ah ci PSE boobu moom de moom laa lay joxee xaalis bi moom laa lay jàppalee ci lii yow nga xool ne ni man sama programme de am na ci yu ma am en con yu yu converger ak PSE peut-être tur bee soppeeku mais même mm-hmm. contenu la mm-hmm. je maintiens mais loolu yëpp il faut juste dans la communication mm-hmm. jël temps wu la lanterne des Sénégalais du waxtaan ak Sénégalais yi euh, Sénégalais soxoru lu mu yàkkamti yàkkamti xam na li mën a nekk ak li mënul nekk dina toog patienter ko bu ko patienter nag yow ça te permet nga baral jéego yi. pour que la nga waxoon même bu dee jàpp date bi nga jàppoon romb nga ko mais la ngay romb du doon lu bëri. Mm-hmm. yow seen volonté Abdoulaye bi nga xam ne le nouveau gouvernement am nañ ko pour euh, wàññi njëgu dund gi mais est-ce que les facteurs sont waaw man gëm naa ne wàññi bi mën na nekk comme sama <laughs> frère li mu wax sànq ne gëmu ko man dama ko gëm euh, kañ lay doon loolu nag dama gëm ne aussi yàggatul. ndax Birahim mi ngi koy wax sànq gis nga wàññ bi lépp dépendrul ci ci Sénégal c'est vrai que il faut mu am ku ko supporter soit mu doon le gouvernement soit mu doon la population même mais dafay am ay facteurs exogènes yoo xam ne parfois dafay naqari maîtriser mais li état mën a def rek mooy subventionner te gëm naa ne aussi subvention boobu mën nañ ko def ci benn temps mais li ñu indil problème yi yépp loolu la ñu war a wax ñun Sénégal lan moo tax après 60 ans d' indépendance ñu toll ci situation bii ñu toll ndax waroon nañ ko dépassé ndax dëkk boo xam ne tey jii yow am nga suuf suuf bu nangu nag teg ci am ay vallées fossiles yow am nga ndox am nga naaj am une jeunesse boo xam ne à plus de 70 pour cent man dama gëm ne volonté politique daf ñu manqué trop trop trop mais